waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk taalibe yi mbokk jullit yi ginnaaw bi leen siyaaree kenn ku ne sa tur sa kaddu di jiite siyaar bi ak nuyoo bi Seex Muhammadu Muntaxa di ko dollee ñaanal suñu boom gën ko fee yàggal tamit ak wér noonu ñaanal te Seex Amadu Muhammadu Mbenda mi xalifa Seex Ibra ñaanal xalifa yi ñu fekk fii yëpp ci mbokk ci ñaanal te kilifa gu baax gi ñu àndal muy Seex Abdou Karim Mbacke Moustapha jiite ëllu nga xam ne moom la ànd liggéey mooy suñu sëriñ mooy suñu jëriñ muy Cheikh Abdou Karim Mbacké Moustapha di waa kër suñ baare yi kon ñu siyaar waaw waaw sëñ bi loolu li la ci xamal mooy mbooloo mi nga gis sëriñ bi jiite ko mi Abdou Karim Mbacké Moustapha génn kuréel gi ñuy wax ahlu xidma la ni muy ànd liggéeyal yàlla ànd liggéey suñu ca ata rek tax ahlu xidma gi nag Touba Kébémer an bàyyi ko waaw Kébémer Kébémer an jóge waaw ànd koog sëriñ bi Seydou Karim Mbacke waaye ëxlu xidma gi dañ kaa taxawal ngir liggéey Sëriñ Tuubaa si jaam ñi te yàlla kese tax loolu nag biñ koy taxawal yu mel nii moo taxoon fépp foo xam ne woote nañ fa diine woote fa lu jëm ci yàlla dañuy bàyyi suñuy yitte dajale suñuy café ak suñuy suukar ak suñuy jumtukaay segg ko indi ko séddale ko dañ daan def sax fu programme ba am ñu fa fanaanee seeg café gi xëy séddale ko waaye dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo seegge KMR bii mu ci guddi fajaru ñëw waaw waaw relation bi ñu am ak ñoom de wéesul si suñuy mbokk taalibe ñu bokk diine ji bokk lislaam bi xam ne tool bi benn la ñun ñëpp ñoo bokk ñuy liggéeyal non ñi fi di wooteel diine di woote lislaam ngir yàlla ñun waa kër borom Tuubaa lan ñii ñu fekk si waa kër si Alaaji Malick si ñenn ci ndaw yi suñ Moustapha yi ñu fekk si leen relation bi nag ñoo xam ne ñii dañuy borom pas-pas di yëngu ci diine di yëngu ci lislaam te suñ mbooloo mii leen naka tax a mooy fépp foo xam ne dañ fay wooteel yàlla comme ni ma la waxoon ñu bàyyi suñuy yitte ñëw amuñu kenn koo xam ne moom lañ fi xam moo tax ñu ñëw dañoo yëg ne mbale mi tey la te ñuy liggéeyal yàlla ñu ne nan seeg kafe gi ko jox ko jaam waaye amuñu koo xam ne moom lañ dégganteel wala moo tax ñu ñëw ginnaaw jëmmi suñu borom daal xam na ne waa kër si Moustapha yi tey ji la bare course bi ngir waajal gàmm gi ñeen ne ñoom ànd ak ñoom liggéey bi loolu dong nga tax waaw kàddu kàddu yi ñuy sànni de ak seede muy jëmm la joo xam ne xëy na miin ñu ko dëgg-dëgg si jaxasoo ci wàllum xamante waaye miin nañ ko si jumtukaayu xarala yi ndax dinañ teewlu waxtaanam te dinañ ko gis ab liggéeyam muy koo xam ne tamit naw noon doxinam te ñii ñii nga xam ne mooy ay taalibam am na ñun si nekkal KMR ñoo xam ne xam nañ leen jaxasoo nañ ñooñu tamit wax dëgg yàlla doxin ñuy doxee KMR nekk ay taalibi si ñu safaa doxin wu rafet la te doxin wu tege ci yoon la loolu na jàpp naa ne kon seriñ bi moo ko jëm jëmbat si ñoom sëriñ bi na kàddu yi loolu nga xam ne moom la jëmbat si ñoom ban man koo doxee kon yaakaar naa day loo xam ne lu muy dund la lu doxee la woo si ñi ngir xettal leen jëme leen ci yàlla kon nag liñ koy ñaanal mooy mu yàgg fi te wér ba liggéey bi muy liggéey mu gën koo man te ànd ko yéen taalibe yëpp kon daal loolu la ñu amoon si kàddu yoo xam ne ñi ngi koy ñi ngi koy yëkkati bu fekkee ne amaatul leneen loo war a laaj rek loo bëgg a xam tamit ñu taxaw déglu la rek waaw waaw kon ñu ngi toog